j'ai l'habitude de te dire que pour que ñëw balaa ngay au pouvoir ou ngay nekk ce régime bi dafa am héritage qui est ne ko hmm. et que héritage boobu non donc conservé conserver pour les générations à venir. je aussi dit wax que du tout président doit réussir à conserver l'aiguille politique parce qu'après ce régime il y aura pas l'aspect politique mais di nga aura peut être que euh, à la vie politique on est dans une récession démocratique mm. qui a donné naissance à une crise de la démocratie le président Sall quand il a renoncé à son troisième mandat bien vrai que nous avons dit bëgg que le président a renoncé parce que sous renoncer day comme si euh, li gens alors que ce n'est pas le cas non constitution non je me réfère au dit de la constitution constitution hmm. bi moo nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs donc le président Sall peut-être que son renoncer. renoncé na bon euh, ça peut être li nga un discours politique mais li nga constitution bi là la je pense que tu vois le bon amul am li nga xam retour bimou mooy xëccoo bi troisième mandat bi il y avait eu un dégel il avait commencé à avoir une sympathie d'une d'un pourcentage de la population Les il devrait être dans la continuité là aujourd'hui le constat qu'on se qu'on euh, mm. ce sont des problèmes politiques il faut faire la différence entre problème politique et peut-être un problème juridique Ousmane Sonko au début il a carrément dit que les li ne c'est juste pour m'empêcher à me présenter aux échéances de 2024 après si le ce ne sont pas des procès juridiques ce sont des procès politiques donc je répondrai de manière politique après si le commencé dit am un discours politique le président Sall avant mi il y mais am ay discours on a les moyens d'aller déloger le président Ouad. On a les moyens de mettre 100 000 jeunes à 200 000 jeunes dans la rue. Yo, c'est des discours politiques léegi nag yo, su fekkee ne que tey da nga mais Benno Palais Dakar lolu tamit waxu politicien la rek mais li nga xamné mom le président Sall wax ak ñepp ño xamné ñi ngi won ci opposition mm. bi les mm. archives sont là mm. les vidéos sont là audio ya ngi fi képp ku dugg ci net bi demat ci li nga xamné ne rétro yoy non yep mën nga ko am ce ne sont pas des choses yi nga xamné ñi ngi koy inventé wala li nga xamné euh, ñi ngi koy euh, créer donc fallu mom la doon wax des fois la politique d'amène dans une haine c'est artificiel et que nous ñep ñi nga xamné politique bi ils ont un but commun hmm. xam nga lan nous, nous, bi hmm. le pouvoir yow aujourd'hui situé au pouvoir Fallou tu veux y rester. Hmm. képp peut-être son objectif peut-être que s'il se présente sur les élections il veut devenir le président de la république. Moi, je wan ne y a un but commun. Les nag yow su tu es à la fin de ton mandat. Hmm. mais effectivement war nga saluer Malheureusement que regarde quand le président Senghor est passé mais bien vrai qu'il y avait des critiques mais bi jallé hmm. Abdou Diouf quand il est passé c'était sax si régime mom lañu que aujourd'hui peut-être euh, toutes les revendications qu'on faisait euh, dans l'actualité politique si régime mom lañ ko accepté. Hmm. légui nak bi maître wad ñëwé na ay cadre yo vraiment population yu bari dañ ci contane et mom il a réussi pas sortir par la grande porte génnee ci porte bobu non tay ji moko permettre ça yu nekkee ci biir dëkk bi wala ñu yegg ne que mi ngi waaj ñew da fay am li nga xamné mom moy chaleureux mais le président Sall est-ce que warul xol ci exemple yoy noonu top tank yoy non pour que su fi wé mu am li nga xamné mom moy way way bu hmm. rafet hmm. mais regarde ce qui se passe actuellement li ñu nekk di dund sur l'actualité politique mosuñu ko dund violence politique des détenus politiques madame ce qu'on vit au Sénégal le musul am ban époque mom lañ ko amee 2021 et 2023 hmm. au moment où une hmm. personne bien nga xam langue politique n'est qu'une réalité sénégalaise nous devons que encore une fois l'éliminer à ce qu'il ne soit pas li nga un candidat pour les prochaines joutes li nga xamné mom lañu wara fan la commencé bu ñu ne lan dossier Adji Sarr Ousmane Sonko fan la mujjé tay corruption de la jeunesse digganteem ñu jëlaat beneen dossier bo xamné ne kenn yaakaaru ko won ci benn lapsus manam moy lan IGE ak IGF condamnation bi ñu def Ousmane Sonko demal nga xol les archives tu verras pas encore une fois une condamnation aussi lourde bo xamné ne dugal nañ ko ci li nga xamné mom moy un procès de diffamation il faut revenir à une certaine réalité lan moy réalité bi Sénégal dañu nekk ci ginnaw Sénégal dañ delluwaat ci ginnaw hmm. mom tax on est dans une récession démocratique bi hmm. indi une crise de la démocratie à ce que as dit encore une fois fallu me revenir là sur les pas de la bonne gouvernance le président Sall bi en 2012 ils avaient des chevals de bataille à ne pas finir li nga avant parti mais le constat qu'on fait pose-toi des questions en commençant par la justice pose les problèmes aux Sénégalais est-ce que tey dit yaa ngi dégg effectivement des acteurs politiques wala ñi nga xam ñi ci régime bi ñi dem ci banlieue bi di saytu les personnes qui ont besoin d'une assistance tellement que dañu jël lépp politiser ko léegi le constat est là tu prends tout tu le politises tu permets à cette partie de la population yi nga xam ne seen yoon nekkul politique nga dugal leen ci ñu dans une euh, évolution bo xamné sax légui yow il te laisse derrière motax tax il ne faut pas il faut revenir à la raison delluwaat ci ginnaw la politique ne doit pas nous amener dans une certaine extrémité. alors euh, c'est clair donc mi ngi noonu chers téléspectateurs ma ni kon euh, depuis li nga xamné que modi 24 heures len daal di arrêté ñooñu nga xam itam.

Euh, peut-être au sénégalais parce que nous, bari japp na ni Sonko peut-être ba ci bokkoon na chef d'accusation et que ni euh, da nga ko tudé lu jëm ci li nga xamné que modi entreprise terrorisme ak yu ñu mel exactement alors aujourd'hui le président Macky Sall ñëw na euh, ni débat de manière beaucoup plus claire japp na ni nak des fois passif, parti bu nek amna ay obligations mun ñoo gis parti bi nga xamni tam 24 sur 24 yi daal jëm salu que répression ak walu que manifestation ak yeen ak yeneen alors justement Mamour aujourd'hui le président Macky a édifié le débat au Sénégalais par rapport à aujourd'hui dissolution du la vraie raison euh, encore dévoilée par le président japon la parti politique du exactement

tu peux prendre des, exemples des pays de la sous-région Nous avons traversé des attentats terroristes si jógewee dafa am ay mesures sax sur le plan de la sécurité regarde qu'est-ce qui se passe au moment où on nous parle que peut-être il y a des terroristes il y a des mouvements qui xamné ñi ngi bëgg y a un avocat qui a néwon un mandat d'arrêt international il est passé par les frontières ci dëkk bo xamné nénañu que peut-être y a la présence de certains membres yoo xam ne wala de certaines associations yoo xam ne kenn mënu ko expliquer. Mm. foofu rek mu nekk li nga xam ne moom mooy benn point d'interrogation boo xam ne dañ koy indi ci wàllu boobu noonu. mais suñu ñëwaatee fàllu sur les faits maanaam dafa am ñaari dossiers yoo xam ne moo indi tey tension yi nii yëpp. premier dossier bi moy Ousmane Sonko deuxième dossier bi Ousmane Sonko ak Mambayan. et que aucun de ces deux dossiers là ont atteint l'autorité de la chose jugée parce que les voies de recours ne sont pas épuisées mais regardez regarde biñu ñu le mandat de dépôt Ousmane Sonko kan mo le wax du procureur bi jël ay charges yo expliquer te avant ñu japp Ousmane Sonko y avait des personnes yo xamné ne nañ leen mandat de dépôt mm. mais dañu gis ne que depuis bi ñu jàppee Ousmane Sonko dafa am moo bo xamné mom moy gëna ñëwaat c'est-à-dire lan association ak li nga xamné mom moy lan. association de malfaiteurs ak ay terroristes euh, léegi quelque temps après léegi bi décision yoy nonu génnee. la mm. majeure partie de cette population génn taxaw né mais attends mais charge yi nga xamné jël nañ ko corsé ko si waa ni. fan la jóge mm moo tax benn moment maa ngi doon déglu ki nga xam ne moom mooy Pape Moussa Sow nee na état bi dañu jël ay daan teg ko Ousmane Sonko léegi ñu toogaat ay quelques jours ñu indi ay preuves yoo xam ne peut-être moom mooy justifier acte yi nga xam ne ñi ngi koy def en commençant peut-être la dissolution du parti. Hmm. ak yeneen charge yoo xam ne ñi ngi koy teg képp koo xam ne yaa ngi nekk euh, biir Pastef ak wala yaa ngi jege ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. Hmm. léegi nag su fekkee tey jii le président Sall moom moo toog wax ne que peut-être que y a des choses yo xamné ne gis nañ ko té askan bi ko ñun dañu bëgg encore une fois à ce qu'il y ait peut-être des preuves ak lo xamné ne nga ko wax sénégalais mais yow mëno tepp tepp tepp un bonjour nous rek ñu laaj la nga non peut-être y a des liaisons avec euh, des non il faut revenir à la raison Il mm-hmm. y a des choses yo xamné ne ñun mënuñu ko concevoir amna ay mbir yo xamné ne ji jii pour dugg suñu ça cause problème je vais prendre l'exemple du ministre de la justice garde des sceaux dañ toll ci moment bo xamné à chaque fois que day génn su génnee ba pare day indi li nga xam ne moom mooy polémique parce que tout le temps les juristes ñoom ñooy génn. te tout le temps dañuy naan décision judiciaire amul droit daal di koy commenter. mais effectivement. Hmm. effectivement il doit y avoir une différence entre l'homme bi nga xam ne peut-être que ci wàllum droit moom lañ ko xamee ak le personnage politique. mais tey jii suñu ministre de la justice garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall. Hmm. on voit plus li nga xam ne moom mooy lan l'homme politique. et que loolu noonu c'est un constat boo xam ne du man maa ko def mais génnal si mbedd tu demandes au Sénégalais tu auras la même réponse légui nak maa la wax on ne peut pas sortir une personne sur le plan administratif Ousmane Sonko so koy genn ci langue politique il faut un acte judiciaire bo xamné ñun dinañu lèr dinañu dem ci texte yi gis ko ne ah quatre droit bi man li la wax li la wax donc ni lay doxé ni lay doxé mais so xolé processus bi nga xamné mom lañu top top. on voit beaucoup plus li nga xamné euh, mom moy peut-être que dañ ko bëgg a génne si wàllum politique en pensant par par euh, peut-être les plans administratifs mm. et que maa ngi la ko doon wax loolu mënul génne Ousmane Sonko si langum politique bi léegi nag maa ngi la ko doon wax dañ toll ci jamono joo xam aujourd'hui le conseil constitutionnel moom mooy décider ñi nga xam ne ñoom ñoo dul bokk sur les euh, élections de 2024 ak ñu dul bokk concernant mbirum parrainage yi peut-être que d'ici les jours à venir dinañ commencer li nga xam ne moom procédure yi pour am effectivement peut-être que les têtes yi nga xam ne ñoom ñoo war finir dans le lot des personnes qui seront dans les joutes électorale de 2024. Mm. donc yoy non des constats bo xamné on est en train encore une fois d'avoir une bonne vision concernant l'actualité politique et que j'ai l'habitude de te dire l'état de droit et la soumission de l'état au droit les droits de Ousmane Sonko n'ont pas été respectés les droits civiques de Ousmane Sonko ont été bafoués Mo waral population ne mm. regarde les manifestations qui se sont passées. Euh, euh, Mon école lu comme de plus en plus. Comme naa di jug si mi lu jëm si tur yi nga xam ne itam su ko doon dégg dafa nekkoon ay c'est-à-dire lu toll terrorisme waaye itam lu toll ni li nga xam que moo justement ay islamiste da nga ko doon fal di ko daal dégg euh, fudul li nga que le Sénégal du donc tey su nga ko daal déglu li nga xam ne que mooy Sénégal Donc sax ñoom ñi ngi seen rôle euh, d'alerter li nga xam ne que les autorités parce que aussi quoi qu'on puisse sûr ils sont mieux renseignés que nous mais quand même les li nga xam ne peut être ñu koy daal avancé indi si li nga xam ne que moo ay preuves à dans sens et que euh, su leen laaj des preuves il n'a tout le temps que li nga xam que

parti boo ni meeting yi euh, ku nekk da ngay indi la nga am euh, nga ñëw li nga xam nekk moo di donc waa Pastef nëbb nañu seen bopp de Mamour. Fallo. Hmm? Fallo <laughs> il faut revenir à la raison. waa Pastef nëbb nañu seen bopp de. nañu delloo si waat ci la réalité. ok y a une réalité politique réalité politique boobu non dafa am benn pourcentage boo xam ne dañ nekk si ginnaawam Ousmane Sonko est rentré encore une fois dans le cœur des gens. Hmm mais à travers les actes yi nga xam ak injustice bo xam ne mi ngi Ousmane Sonko maintenant va rentrer dans la raison des gens. ok nous on n'est pas de pastif on fait partie on fait pas partie de Pastef. Hmm. amaana Ousmane Sonko peut-être si une conférence de presse une ñu doon dem si lañ koy gis. Hmm. mais par contre su fait da nga nekk ci réew boo xam ne nee que lépp mi ngi jaar à la normale y a des choses qu'on ne doit pas voir man am na loo xam ne tant que teguma ci sama bët wala awma ci ay preuves yu leer nañ du ma ko gëm ah, chacun nag est libre chacun ma la chacun est libre d'avoir sa propre perception sur les choses hmm. biñ ko barricadé euh, cité kër góor gi dama mës a toog ak benn ancien préfet ma laaj ko ne ko est-ce que yéen seen époque daan nañu assister à ce genre de fait là mu ne ma non non ma ne ko donc qu'est-ce qui explique hmm. yii ñuy gis nii hmm. mu ne non vous savez peut-être que nous, nous avons des informations, vous ne les détenez pas. Et que l'État, ça ne se passe pas comme ça. C'est la fameuse C'est la seule réponse,